première décision bi nga xam ne moo fi jógee mooy orientation yi at bi passé dañu def bac xale yi am bac mois de juillet ñu orienté leen avec beaucoup d'efforts mois de janvier muy juróom-benn weer ñun ñu ni bu ci ñëpp jàppee étudiant bi soxlawul muy am bac di toog juróom-benn weer pour xam fu muy jànge ñu waxtaan ak ñi nga xam ne seen xel dafa màcc ci loolu ay experts ay techniciens ñu ne ñu boo leen ñu jàppalee mën nañu fexe ba inscription boobu bu élèves yi amee bac mois de juillet mois de septembre le 19 septembre dinañ leen orienté muy ñaari weer boo jógee nag ci orientation juróom-benni weer ñëw ba ñaari weer ci loo xam ne état moo koy support dama naan jërëjëf gàcci ngaalaama